waaye li nekk yoon mooy ku jigéen ki moom muy soxna si yoonam daa wërta nekk sama tabaski mii rëy na tuuti na du dana dugg ci kër gi dana génn loolu loolu du domenam buy dugg may génn waaw buy dugg may génn moom danga wallaay bu la taxee dugg nga génn waaye taxulaa dugg gàcce lay bañ rek waaw xar mi tey ñu bëgg a waxtaan ci lan mooy tabaski bala ñoo dugg nag xëy na ni ñu ko war a defee yooyu lan mooy cosaanu tabaski ak lan mooy sabab bi. jërëjëf oustaz euh, Serigne Souaïbou bu ñu uh-huh. nee lan mooy tabaski laaj la bu am solo. Uh-huh. boo xam ne boo seetloo Sénégal ni ñu koy waajalee wala li ñuy def lu mu mën di doon. Uh-huh. dina jaadu léeg lekk ñi koy def jël ko teg ko ci taabul tiim ko. ne waa man li may doon def nii lan la. kon tabaski mën ngaa wax ne ab xew-xew la. boo xam ne mooy benn ci feet yi nga xam ne moom la jullit ñi am maanaam jullit ñi. Ah, ñaari iid lañ am mooy iiday ni mhm. benn iid bi mooy iidul fitre nekk korite mhm. beneen bi ci des nag mooy feetu tabaski mhm. kon tabaski da ngay wax ne ak feet la goo xam ne ci lislaam dañ cee dëppoo ne ci fukkeelu fan lay am ci weeru tabaski di weer wi nga xam ne moom la ñuy wax sul xijja ca fukkeelu fan ba mooy tabaski euh, mi ngi am ci ginnaaw bi nga xam ne taxaw nañ arafa ba pare biñ taxawee arafa ba pare ca la tabaski di am euh, ña nekk màkka dañuy wéy ñoom du ca mott li ca bis boobu seen ay manasikul xaj uh-huh. maanaam ñun Sénégal ñooy tal tala nekk di rey aka fees aka lakk uh-huh. waaye ñoom bis boobu dafa am yeneen yu leen fay xaaraat ci jaamu yàlla yoo xam ne ñoom moom lañ war a defi uh-huh. tabaski ngir nga xam moom mooy lan ci cosaanam ak ni nga ko waxee mooy dundal sunnas Ibrahim alayhi salaam yonent yàlla Ibrahim dafa amoon doom waaw waaye mu yéex a am doom lool ndax bi muy am doom dem na ba naagu ci ne dootu ko am. Hmm. yàlla may ko doom doom ji tudd Ismaayil. Hmm. lu jiitu yàlla di ko may doom fu nekk yàlla jaar na fa ak moom. ba yàlla tànn ko ne ko fi ma mas a jaar ak yow ci fu metti fépp. Hmm. lu mu metti metti wan nga ne ma man may yàlla. Ibrahima léegi def naa la nga nekk sama xarit. mu bëgg yàlla ba ñépp seedeel ko ne. Ibrahima mii dafa bëgg yàlla boole ci gëm ko. yàlla may ko doom. mu yeex am doom lool te xam nga ñun ñii ñëpp suñu doom ci suñu xol yi lañ sax mhm. bari na ci ñun ñoo xam ne man ngaa dund lu yàgg doo ma sa gëdd sa jabar ah. doo ma sa wax ak moom wax ju diis mhm. waaye keroog ba nga amee doom mhm. bis bu ko sàgganee rek sa baat jóg la nga wax naxal xale bi wala nga waxe ci ton boo xam ne sàggane gum sàggane xale bi moo tax ibrahima nag loolu daal ko ci doomam ji di ismaïl mu bëgg ko lool damay faral di wax ne suñ borom daal di def benn film bu ñëwee ba tey ñun waxkat yi danañ ne danañ werante ci Ibrahima doomam ji la gënoon a bëgg wala yàlla la gën a bëgg ah. bu film bi daw doon uh-huh. ñun danañ werante ci ne Ibrahima moom doomam ji la gënoon a bëgg wala yàlla la gënoon a bëgg parce que bëggoon na doom ji lool uh-huh. yàlla ne bala ngeen a dem ba 2014 uh-huh. sénégalais yu mën a werante yi di werante ci loolu xaaral ma leeral leen ba mu leer ne Ibrahima man mii la gën a bëgg ndeysaan ñu ne ko noo koy defee Ibrahima tëdd nelaw rek gént ñu ne ko rendil sa doom ji ki la ne bàyyil diw nga bàyyi ko dafa fekk mu gënal la diw uh-huh. maanaam ki la ne bàyyil soxay bu nga ne ko banaa ko uh. dafa fekk kooko gënal ma soxay bu ah, waaw léegi yàlla mi naan la rendil sa doom ji nga noppi ngir rendi sa doom ji fas yéenee koo ak moom dafa fekk yàlla gënal la sa doom ji uh-huh. moo tax bu la yàlla ne bàyyil sàngara nga ne ko yaa ma gënal sàngara bàyyi naa ko uh-huh. bu la nee bàyyil njaaloo nga ne ko yàlla yaa ma gënal njaaloo bàyyi naa ko moo tax eh, lépp loo xamante ne nii yàlla dala koy tere hmm. dangay ngay da gën a bëgg yàlla ci loolu bari na ci ustaas yi ñoo xam ne li ñuy tere nit ñi mënaguñ koo bàyyi hmm. mooy ñi ñu koy tere dañ leen a bëggut dañ a bëggut waaw waaw maanaam am ay soppe hmm. maanaam donc ñu sopp la dafa bokk ci jumtukaayu daawa très bien ñu sopp la ñi ngay waxal bëgg la dafa bokk ci jumtukaayu daawa waaye ki nga xam ne topp li nga bëgg voilà ki nga xam ne dafa bëgg waar nit ñi ba pare nit ñi jéppi ko mm. bëgg waar nit ñi pare nit ñi jéppi la mm. li ngay wax cam la ñuy wax am na koo xam ne sax la ngay wax du ko bàyyi ndax da lay bëgg a naqaral mm-hmm. Ibrahima nag dafa bëgg suñ borom ba yemalewu koog dara mm. mu ne yàlla nag sama doom jii nga ma may tey laa koy rendi sëñ Juwayb mm-hmm. loolu mooy tabaski mm-hmm. ba ko Ibrahima décidé ci di ko rendi ji nag ci gàttalu sax ndax sa laaj bi noonu rek lañ ko mën a tontoo ci tënk ko ca la ko suñ borom subhaanahu wa taala daal di koy wuutale hmm. am maanaam ab gàtt hmm. daa ne wa fadaynaahu hmm. bi sibhin asim yàlla daal di koy wuutale am xar mu rëy ibrahima doon jubloo rendi doomam ndekete am xar la rendi doxalin woowu nag saf yàlla lool neex ko lool bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee itam loolu neex ko lool mu ne suma ma sañoon at mu jot ngeen fàttaliku ko moo tax at tëbaski nekk sunna kon tëbaski du farata waaye sunna mu akkada la Ah. ndax yonent sallam daf koo daf koo digle ba noppi dëhale ci Mm-hmm. daan ne bu ngeen ko defee da ngeen ci am nangam da ngeen ci am nangam ngëneel yu bare bari ci incha allah danañ ci àgg waaye eh, eh, digle googu mu ko digle mm-hmm. mooy ndax ñi man koo def ndax ñu fàttali ko diggante ibrahima ak boromam subhaanahu wa taala mm-hmm. waaw eh, oustaz li nga wax am na solo ni ibrahima nekkee woon xaritu suñu borom ni nit ñi doon lamlaame ibrahima doom ji la gën a bëgg yàlla la gën a bëgg ak ni ko yàlla yéexee may doom ak loolu kon xëy na sabab boobu ci la tabaski jógee ba am gis foofu leneen muy ibrahima dafa mel ni bi muy ren di doomam jooju muy Ismaïl euh, bi ko yàlla sante insisté wul ne fa di insisté ay lii lu tax ak nangam mais dafa ñëw rek di jëfe ndigal la. ah kay euh, euh, du sax li nit ñi doon laam-laamee ndax Ibrahima doom ji la gën a bëgg wala Ismaïl la gën a bëgg laam laame gi amagut. dama ne. man maa ko defee misaal. waaw waaw ne bu suñ borom day mel ne day def misaal moomu. ndax kenn dootu sikki sàkk ci loolu. <laughs> waaye nag laam-laamee amu fa Ibrahima dafa yeewu suba rek. Mhm. wax doom ji waxin wu daw yaram. Mhm. yaa bu nay. Mhm. ndeysaan inni ara fil manaami anni asbahuka. ndeysaan fanzur maasa tara. Ibrahima dafa wax doomam ji tey. woo ko ci tur wa gën a neex. yow sama ndoom si. ndeysaan moom fiis. est waaw bu doon fii ñu ni moom fiis. <laughs> waaw teg ca nag ya koy tax a neex. ba mu xam ne ki koy woo sopp na ko. mu ne ko sànq bi may nelaw xam nga bu njëkk mag ñi ñun ñëpp suñ suñ néeg bàyyi lañ daan ndékkee ji waaw waaw buñ xëyee toog teg paa bi paa bi teg kopp yi waaw ay yëre lañ koy wax sax yére café yi yëre kafe yi eh, yor kafteer bi baraada bi waaw daal di yor kafteer bi waaw daal di xelli mhm. bu xellee kenn ku nekk jël sab kaas bu ñu amee bu ñu amee gan eh, gan gu ñëw ci diggante bi mu indaale mburu ñu daggate ko mi ko waaw waaye xelli googu mu daan xelli dafa am njàng mu ci nekk mhm. mooy kenn du jot li kenn góor gi mooy xelli ñi mag am kaas yu fees ña ca topp am yu yamamaay ah. nga xam ne ni at yi tolloo woon noonu la kaas yi di toll maanaam niñ magantee mm-hmm. noonu la ñu ëppalantee ab yar da ci daan feeñ ci nañ toppante mm-hmm. li tax kenn du jot li kenn dañ koy teg kenn ku ne yaay ñëw jël sa kaas boo koy jël ku góor ki xool la mm-hmm. moom borom kër gi bu gisee say bët xonq ngay óobule mu xam ne yow mii ne la woo tëddoo heure mu xalaat ci loo fanaan ba tëddoo bu fekkee ngay biin biin lu mu xam ne kii dafa mel ne ku tawat mu laaj ci loo fanaan yi nga xam ne kon borom kër gi moo daan saytu këram loolu aada la woon aada gaa buñ ko bàyyee léegi itam nag civilisation ak ni doxalin weeg ni ñu dëkkee uh-huh. aayut waaye aada la woon uh-huh. ibrahima nag looloo ko dal ci suba teel gi këram ndeysaan mu xëy suba ismaayila ñëw nuyu ko uh-huh. mu ne ko man daal damaa gént léegi ñu ne ma naaral ren bi gént gi rëy na de wallaay rëy na damaa gént ñu ne ma naala ren lu ma la mas a digal nag def nga ko ndax sama doom nga joo xam ne su ma déggal nga waaye lii dafa sérieux ndax affaire rendi la affaire ren di kenn du ci forcé nit kon nag fan sur masatra demal nga xalaat ci nga waxtaan ceeg say xarit xool ba xam loolu yow man jàngat nga ciy def ndax ak gént dong la ci man hmm. kon moom discuter wu ci kon démocratie ci moom la commencé waaw discuté déedéet dafa am sax lu muy jàngale foofu loo xam ne moo ëpp doole démocratie parce que ñi ko wax ba léegi firéeguñ ko waaw waaw démocratie moom ñi ko wax ba léegi firi laguñ ñu dëgg lan mooy def déedéet parce que ñu ne nañ def lu ñu neex ba pare ne ñii moom buñ ko fi defee waaw waaw dañ naan nañ def lu kon lu ñu neex waaye duñ ko fi defee la wax uh-huh. tey jii yow boo yoroon say këyit dem déposé ji loo xam ne ci turu l'islam la hmm. ba par exemple ab parti wala dara dañ naan la réewum layig lañ nekk doo fi am parti l'islam hmm. kon lay dàq na foofu démocratie moo tax man la baat bi kon firéeguñ ko ba léegi hmm. ala alin isma ibrahima la jëfandikoo foofa du démocratie duñ ko tudde noonu ndax xamaguma baat bi lu muy tekki moo tax bëgguma koo tudde waaw waaye dafa delloo bal bi ci camp yi ismaïl xam nga lu tax bul fàttali la comme ni papaam nekk yonent léegi baayam ni mu a déggale yàlla Mhm. noonu la Ismaïla war a déggale yàlla ah. te lii ab film la boo xam ne Ibrahima dafa nekk acteur bi waaye Ismaïla itam da cee am rôle il faut mu wone rôle ne rôle buy wone ne ni papaam nangule suñ boroom mhm. moom itam noonu la nangule papaam ah. moo tax papaam ne ko demal nga xalaat ci ndeysaan moom itam mu mu kon léegi ay maanaam ay séquence am moo ñëw yu mu war a wone moom ndeysaan mu ne ko pap mosuma mm. laa gis ci ay jaaxal ndeysaan mosoo fee santaanu san sant ñu dara ñu def ko gis ne lii ëpp naa ñàkk def loo ñu sant rek buñ ko defee dañuy xam ne lii moom mm-hmm. def ko farata la mm-hmm. papa yow doo gént géntoo du gént de moo tax Ismaïla bi muy tontu papaam waxu ko defal li nga gént mm-hmm. daf ko ne if almaatu umar li nga ciy déggee mooy defal liñ la defal liñ la digal ndax xam naa ne géntoo ko ah, if almaatu umar waaw xam naa ne géntoo ko ndigal la kon nag if almaatu umar Ibrahima xalaat parce que ren di dafa sérieux mhm. Ismaïla ne ko sa tajidu nii mhm. insha allahu min assaabiriin ndeysaan waaw wallaay papa bis boo décidé mhm. ba fas yéene def liñ la digal danga ma fekk ma doon kuy muñ ak muñkat pire nga may fekk ma doon ko du ma daw du ma raf du ma la xañ nga maanaam nga manqué li nga xam ne dañ la koo digal kon kon kon Ibrahima déng déngiwut ci liñ ko sant waaye Ismaïla itam déng déngiwut ci ci topp papaam jëf jii nag suñ coin bi mhm. dañ cee war a bàyyi xel saa su nekk mhm. moo tax ki nekk sunna di répété wu ci ñun <coughs> ndax at mu jot bu ñëwee ñu tiire waat ci ay leçons jànge waat ci lu bëree bëri jànge ci lu bëri euh, ni nga ñu ko indilee sax oustaz daf ñuy euh, may incha suñu point yi ci biir bu ñu duggee ci nan la ñu war a tabaskee ak kan ma war a tabaski dinañ ci am yeneen jàngat muy nangu gi Ismaël nangul papaam mm-hmm. ak Ibrahima nangul gi mu nangul yàlla mm-hmm. ba ci euh, lenn ci histoire wax nañu soxna si bi ko Ibrahima waxee moom itamit dafa nangul Ibrahima ci loolu mm-hmm. ko defal li la borom sant loolu dinañ ci déggeewaat yeneen gisin ci biir bu dee xissa bi noonu la kon oustaz ñu ko nag cosaan li xëy na xam nañ fa mu fa xar ma nekkoon nag la ko wutileeg nangam sangam ak yooyu ba gars yi nee na sax ñu lañu waroon a rendi hmm. léegi nag nan la war a tabaskee. dëgg la ni ñu war a tabaskee lu am solo la. <laughs> xam nga lu diis rek du lislaam. ndeysaan waaw lu diis. Hmm. du lislaam lislaam léppam dafa yomb. Hmm. lépp loo gis ñu ne lii dafa diis. wanal ginnaaw. du lislaam déedéet xamal ne du lislaam ni war a tabaskee lu yomb la. wax naa ko léegi àtte bi. léegi nag nit ki day laaj. Hmm. Euh, lan li may def nii nan laa koy defee nan laa ko war a defee. Hmm. su ko defee rek noppalu. waaw moo tax sa laaj bi am solo. Hmm. nan lañu war a tabaski. tabaski waaw. xam nga tubaab bi moom maa ngi koy wax rek ci jotaay yi may faral di def. bi mu bëggee ki di si ñun daf ko daf koo tuddee fête de la mouton wala fête des moutons. ah du fête des moutons. waaw fête des moutons la waaye du fête des moutons. ah oustaz fête des moutons la nag xam nga ah. oustaz yi de foofu dinaa fi ñëw ak yow de mooy feetu xar yi feet yi nga xam ne ci lañuy ñuy rendi xar yi mm-hmm. ku rendiwul pour yow tabaski woo mm-hmm. bu ko xañ gaa yi nag ñëpp dañoo war a rendi xar instant mm-hmm. yi xar moo ñu sonal buub moo ñu sonal waaw xar muy mbeem gestu nga ma gestu sa morom gestu kon feet des moutons la ndeysaan waaw jëf léegi feet googu nga ne <laughs> nga tudde ne feet des moutons la ci sa biir wax nee nga pour ñun ku rendiwul tabaski woo waaw kay ndokk bi muy pour donc pour ñoom ku ku rendiwul tabaski woo ah da nga ciy génne sa bopp ah kay waaye pour l'islam waaw pour l'islam ni nga xamante ne noonu lañuy noonu la ñuy noonu la ñu war a tabaskee mhm. mooy bu ñu xamee lan mooy tabaski mhm. bu ñu xamee lan mooy tabaski wal ma sàmba ak xam attey tabaski mhm. bu ñu xamee nan la ñuy tabaskee maanaam xam lan mooy tabaski xam attey tabaski loolu dañ ko war a xam ba noppi maa ngi ci tontu laaj bi nga wax ci ne nan la ñuy tabaskee ndax damay bañ nga def ma yëfu fàllisoon yooyu drapé li ma bëgg a wax <laughs> hmm? kon nan la ñuy tabaskee ak lan mooy atte tabaski waaw buñ xamee loolu ba noppi dañuy xam wan waxtu lañ war a rendi suñum tabaski waaw loolu ci fin bi laa koy soxla waaw déedéet waaye ci nan la ñuy war a tabaskiyee ngay laaj yooyu dañ ko ciy xam léegi kon ni ñu war a tabaskiyee mooy tabaski mi ngi war ku nekk ab jullit bii dafa mel dafa tijjeeku de mooy kii noonu képp ku nekk ab jullit te kàllafe am tabaski daf lay war léegi nag sunna la bu nekk ci saw loos boo xamante ne bu ko nit ki defee bu ko nit ki defee waaw eh, eh, waaw boo xamante ne bu ko nit ki defee am ci tiyaaba ju baree baree bëri ki nga xamante ne mënu ko wàcc na ko maanaam jaamu yàlla lépp loo xam ne nekk na ci ak jaamu yàlla la la ca mënul rek daf lay daal di wàcc waaw euh, léegi xam naa ne oustaz insha allah euh, waaw moom mu ñëw ci biir ah. waaw léegi a ci continuer oustaz warkal <laughs> la ah. kon jërëjëf mi ngi noonu léegi li may wax mooy ci kon ci wàllu jaamu yàlla dañuy wax ne lépp loo xam ne mënoo ko ci jaamu yàlla gi bu boobaa loolu noonu wàcc na la li nga mënul ci jaamu yàlla gi ci wàllu tabaski eh, mooy mooy tax mu diis mooy tax mu diis te donc wax naa la léegi ne la ci wàllu lislaam lépp lu diis rek mën ngaa wax ne loolu du lislaam mhm. lépp lu diis rek man ngaa wax ne loolu moom mhm. loolu moom loolu moom du lislaam kon sëriñ Sohaybu bu sa laaj bi am na solo lool ci nan lañu war a tabaskiyee wax dëgg yàlla mhm. waaw Oustaz dese ngaa yaatal nag de parce que tuddee nga ko fii xaw ma fête des moutons ni gars yi ñoo ko tuddee mais Sénégal yëpp xam nañu fête des moutons la Oustaz euh, bul fi xañ xale bu jigéen wala bokk ki nga xam ni jëkkëram du ko war a wutal xar mu rëy waaw astu boroom këram du ko war a wutal xar mu rëy bul ko ko xañ kenn ku ci nekk sa kër da nga faa war a dugal xar usaas mhm. xar ma dafa war a rëy mhm. xar ma war na ngande nga yeew ko ci buntu kër ba xale yeewu teel sangi ko mhm. kon nag fête des moutons lañ ko mën a tuddee pour kenn ku ci nekk nag xam ni sa jabar yaa ko war a mën a tagga sagal teral ko nag ci li nga xam ne mooy fête bi usaas tubarkàlla loolu am na solo ndax li ngay wax nii ay pas-pas la yoo xam ne mi ngi ci pénc mi moo xam ne dangaa jàpp ne sa jabar da nga ko war a wutal fête am xar mu rëy Euh, sagal ko déedéet kenn du wax ne bul wutal sa jabar xar mu rëy waaye dag bul fàtte ne du moom nga koy wutal mhm. tabaski mi nit ki da koy def taqarruban lillahi mhm. taala maanaam daf koy def ndax jublu ci mhm. jege suñ borom subhaanahu wa taala ki koy def da ciy jublu jege ci suñ borom subhaanahu wa taala mu nekk ak jaamu yàlla la léegi nag ginnaaw bi mu ko defee ba noppi ginnaaw bi mu ko defee ba noppi moom tabaski mi euh, ba mu rendi ko ba noppi mu dig ndawal euh, donc ndawal gi nag moom da ko naan sax ndawala ngi nii bu dee loolaay teraanga ji teraanga ji la mm. waaye nag euh, sëriñ bi mm. waxuñu ne far force nga jëndal soxna si am xar ba muy diis mm. déedéet boo ko manee mm-hmm. danga koy def te yàlla tax mm-hmm. bu yow mal xiyaamee mu nekk tiyaaba ju bari ci yow mm-hmm. boo ko mënut wàcc na la xarmeet waxuñu ne na doon xar mu rëy gis nga xari yar yi ngay romb fi mu ne ñu eh, fi mu ne ñu yeew ko mm. man de su ma ko rombee gétt maanaam daral gi xool mm. dinaa xam xar mi ci tolloog sama doole yow dama damaa jël exemple bi ci man mm-hmm. ñun ñëpp mm-hmm. sénégalais yëpp mm-hmm. daral goo romb rek da nga xam ne xar mii moo tolloog sa poos oustaz sa soxna sañ nga koo sagalee xar mu tuuti ay xaru yi ray mu dee rayul mu dee su fekkente ne romb nga dara gi xool te xar yi nga fa romb yëpp hmm. mooma dara tolluwu ceeg sa poos yoróolu ko jënd hmm. bu boobaa wàcc na la fi mu ne tabaski gi ni mu jegee fii nii hmm. fay sa facture courant bi ci kër gi moo gën a doon farata ci yow tabaski bu fekkente ne lenn dong nga yor te boo jëndeem tabaski ñu coupé la courant ñu ne la fayal courant bi moo tax diisut kon kooku tabaskiwul oustaz. ah kay eh, abi ayub al ansaari. Uh-huh. radiyallahu anhu dafa wax ne Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Uh-huh. ci ay jamonoom nee na ñoom. Uh-huh. ci kër gi dañ daan rendi menn xar. kër gu nekk boroom kër ga wala ka yàlla man loo day rendi menn xar mu yóbbaale njaboot ga lépp sëriñ soxay bu menn xar mën na mën mën mën na jël kër gi yëpp waaw bu fekkee ab laaj la menn xar mën na jël kër gi yëpp bu fekkee ña ci def dañ koo amut su fekkee dañ ko amul. Mhm. mën na leen a mën na leen a couverture aale ñoom ñëpp yóbbaale leen. loolu bokk nañ sax ci point yi mujj incha allah. Ah. Euh, ñi ngi ci ba léegi rek xëy na nan lañu war a tabaskee. Mhm. Euh, Oustaz sànq indil nga ñu cosaan xëy na sax su ma ci duggee da lay gën a may doole. muy Ismaël ni mu nanguloon papaam. Mhm. est-ce que leen war a tabaski gi soo waxee lii du tax borom kër gi dem jëndi xar moo xam ni rey mu dee rey mu dee la. ah kay ah, mhm. euh, sama papa xotti lu ma ma nekk ci kër gi sol sama yëre daaw wala bi ñu tàppoon affaire yooyu noonu est-ce que da nga jàpp ne xëy na loolu jamono yu njëkk la Ismaël ba muy nangul papaam loolu jamono la mhm. léegi ci jamono ji la ñu toll jamonoy milliards Oustaz Alioune la koy wax ci jamonoy milliards nag na la sa papa jëndal yëre jëndal sa soxna xar kenn ku ci nekk am xar man dama jàpp ne Oustaz suñ ko defu tabaski wuñ Mhm. jërëjëf li nga wax am na solo donc waxaguñ sax ci wàllu nangul gi xale bi di nangul waajuram ak yooyu mhm. waaye eh, waxuma itam ne day tax ku góor ki jënd xar mu rey mu dee wala reyul mu dee li ma wax ma dellu ci mooy ki mën a jënd xar mu toll new nag mm. te du loru mm. na ko jënd yàlla bëgg na wutal niw nag waaw ah, ndax waaw ah, pour nga xam ne xar mu rëy mi bañu ma ko ah. ki doolee xar mu toll new nag te am xarum juróom weer jàpp at mm. na ko jënd rey yàlla bëgg na yàlla nee na du ndawal gi moo ma soxal kenn mësuma ci yekkal mosoo gis ku yenu bool ñu ne yàlla la ñuy lakk yàkkal lii déedéet yàlla neen mosumaa ñëw xool deret ji ni ngeen koy tuure ndax mm-hmm. intéressé wu mm-hmm. li ma soxal mooy yëg-yëg bi ngeen di am bi ngeen di rendi mm-hmm. lan yanaala allaaha luhumuha wala dimaahuha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na yëg-yëg bi ngeen di am bi ngeen di rendi loolu moo a intéressé ci tabaski gi du dëgg léegi nag xale bi naan sama papa dana ma xotteel wala du ma ndax nàngam dafa bokk ci nit ñuy tabaski mooy sol yére bu set ci bis bi sol yére bu set waxuma bu bees de mm-hmm. est dégg nga ma. waxuma yére bu bees. waaw waaye yére bu set laa wax. waaw waaw euh, nga may ma ma euh, fàttali gars yi ngi déglu seen rajo Sope FM ci kanam tuuti nag bu jotee bu desee 10 minutes wala minutes incha allah dinañ déglu élément bi Samba mi ngi ci machine bi élément bi ngi ci bind pour son yi bu Diop tabaski 2014 allah rabbi di leen ngi déglu seen émission ci ngeen bokk fii ci Sope FM tey ñu dalal Mbacke Sylla ñi ngi ci tabaski xëy na deret ja la soxla ak yooyu oustaz deret ji buñ kiyee dañ koy gas suul ko kon la soxla mooy xar mu rëy kenn ku ci nekk utal ko sa njaboot même boo ko mënul oustaz dangaa war a leb dem jëndi ko pour point boobu waxoon naa ci li may wax ba noppi mooy rek ki ko man lislaam néewu ko bu ko fi defee ki ko mënut it lislaam néewu ko far force nga def ko loolu rek laa bëgg a wax maa ngi woon ci wàllu col gi col gi damaa wax ne euh, lislaam waxut xale bi far force comme ni nga ko waxee léegi. Euh, far force déedéet dañoo bëgg ci ci maanaam ci bis bi. Mhm. nit ki sol ci lu bees ndax maanaam sol ci lu sol ci lu set. Mhm. ndax bisu feet la. Mhm. bu njëkk mag ñi daan nañ am menn mbubb moo xam ne ndeysaan ba jamono naqari moom ngay am bisu it nga sol ko boo ñëwaatee lem ko yëkkati sa taatu gaal def ca. daal di xeeñal ay yëf bu bis ba jotaatee nga génnee ko léegi su si yàlla ak mu baaxam. tax na ak col taxul mu jafeetee noonu ci ñu bari mhm. ndax du ma ne jafewut ndax mën naa am mu am ku mu jafe mhm. waaye mën naa am yomb na ci ñu bari li ñu bëgg ci bis bi mooy nit ki yëg na tey jii feet la mhm. moo tax sax ñu bëgg ci tabaski mi ki koy rey saraxe ci saraxe waaw maanaam tabaski gi dañ koy xa am am tabaski yonent saa sallam dafa wax ne nañ ko def ñetti xaaj benn xaaj bi nañ ci lekk saraxe ci denc ci yow kon du bari oustaz boo ci toggee mu jeex saraxe ci waaw en tout cas li ma wax nii moom ab addis la waaw léegi nag seen waa kër ñoom nañu xool ba xam addis bi nu ñu koy jëfee rek ah. yonent bi nee na daal am tabaski daal moom kullu wata daxiru mm-hmm. wata saddaxu mm-hmm. nañ ci lekk saraxe ci saraxe ci mm-hmm. denc ci ndax am xar xanaa mënuñoo añe lépp léegi nag bu fekkente ni mënoo cee denc denc gi wàcc na la ndax ndax denc aw des la waaw mm-hmm. ah, waaw kuy denc dangaa ngaa desal mm-hmm. bu fekkee mënoo cee saraxe ndax doyu la mm-hmm. kuy saraxe itam dangaa ngaa desal ndax li nga am te doyu la mënoo cee saraxe waaye li tax ma dugal baatu saraxe bi mooy bëgg laa woon ne la bis bi ak feet la goo xam ne ñépp a ci war a gis seen bopp sarax bi mooy ñu néew doole nga sarax leen ci moo taxoon ci aada soxna bu jóob bu ma saana ren di am xaram ci këram te ñu taqaloo kër man ma nekk néew ji doole aw moom xar jabaram sa soxna ah, nan la ayda du jël lu jël ab lu jël ab ab ab tànkub xar mm. indi ko suñ kër ne ma lii seenub sarax la ci tabaski yi mm. waaye day indi mu nekk tànkum njëkke ah. bu ñëwee jox ko sama soxna ah. mu naa sama sama euh, sama jabar ji waaw moom day tànku njëkkeem baa ngi nii waaye fekk na man damaa amutum xar tànku njëkke bi mm-hmm. sarax la buñ digise rek sarax la buñ digise ndax ndax bis bu ko nee am yàlla jox la mu geesu xool ma sama soxnaa maanaam nekke fi nii rek nekke fi nii rek lii de war naa jeex léegi su fekkee jox nañ ma tànk mu di euh, muy tànkum njëkke mu mel ne sarax mhm. sama doom ñu jox ko junni ne ko mooy sa ndéwénal ma boole junneekub tànk man naa cee toggub añ tabaski nga léegi loolu lañ loolu mooy sarax ba noonu la ko yonent saa sallam waxe woon mhm. aada ji nii lañ ko defee ba du tas suñum pénc te mhm. loolu lislaam bañu ko xam nga lu lislaam bañ wala aada di ko teg ñu ko tam diis mooy tabaski gi faaw tànkum njëkkee li génn ci même bu njëkkee li nekkoon tàmpa nekkoon tàmba nga war a takk tànk ba yónnee ko ko nga xam ne lii moom léegi mbirum mbirum pas-pas lay bëgg a nuru mhm. loolu bu boobaa day dugg ci ñu sib ci tabaski gi waaye ba léegi engagé wul ko góor ki mhm, mhm. fi mu ne bis boo xuloo ak sa jabar ci tànku njëkk bi doo ko génne ci xar mi daanaka déggoo feq ah daf ko dafa war a génn déedéet dafa war a génn dafa warut a génn dafa jërul xuloo waaw lu ñu defoon la ngir dimbalante li am solo daal mooy ki mi boo koy rey na yàlla tax yow ko góor ki mhm. bi ñu ko reyee ba noppi jébbal ko soxna yi mhm. buñ ci bu ñu ci mënee saraxee nañ génnee sarax bi saraxe mhm. bu ñu ci mënee denc nañ ci denc daal ciy lakk nga xéewlu wasalaam wasalaam foofu ba ci sax wàllu ni yonent bi waxee foofu alayhi salaam ni lekk leen bii denc leen bii saraxe leen bii am naa ci beneen déggin boo xam ne hmm. incha allah dinaa la ko laaj mu mel ni hmm. dafa mel ni kon social dugg na foofu waaw mooy social mooy sarax waaw l'islam léppam social la hmm. so parce que sarax mooy social bisu it li muy tekki mooy bisu feet ñu bëgg nit ñi sol lu bees ñu bëgg nit ñi sañse bëgg nit ñi baalonte àq na ci jàmm bis boobu am na ñoo xam ne mënuñoo sol lu bees mënuñoo sañse te ñooñu tëluñoo baalu ji àq uh-huh. buñ la nee may ko ci yàpp wi mooy kon ndax moom mu bokk ci feet gi mu yëg ne tey feet la uh-huh. bu dee ci tabaski noonu lañ ko parce que dañuy rendi uh-huh. bu dee ci korite gi nga xam ne amul rendi xar kenn diglewu fa rendi xar dañ ne génneel muddum koor te génnee ko bala ngaa julli ji waaw ndax ndax it ndax it social dugaat foofu ñu man kee jox néew ji doole yi ndax ñoom ñu yëg ne tey bis bi la ba duñ yelwaani ñoom it ñu mën a toog seen kër nag kon l'islam léppam da koo organiser waaw l'islam mooy organisation al mm-hmm. islam moom dong mooy organisation man nga koo waxee noonu mm-hmm. waaw eh, point boobu oustaz naa ci ñëwaat bala maa ñëw ci coono yi yi ñu yi ñuy dund nag ku ñu ko dekk mm-hmm. soxna yi la wala ñun la wala comme ni nga wax xëy na tànku bi war a génn te génnut léeg-léeg xuloo am ci kan moo war a tabaski waaw tabaski <laughs> ni ma ko waxee jaar naa ci ay yoon mooy tabaski mi ngi war ki nga xam ne ab jullit la te doon mu kàllaf te am ko te am ko ah. loo tuddee mu kàllaf mu kàllaf mooy ku xàmme koo xam xamee lislaam moom li muy jàppee mu bu dee góor day gént waaw hmm? wala mu sax karaw ci yenn palaas yu làqu yi hmm. maanaam karaw yu wutee karaw yi ñu gis hmm. mu sax ko fa bu dee ku jigéen euh, mu gi maanaam moo am ngàntul julli am ngàntul laal téere mooy mu gis yi muy gis ci weer wu jot mi ngoog baax yooyu la lislaam di tuddee ku mu nga xam ne kii bu jëfatee lu baax ñu bindal ko tiyaaba bu jëfee safaan ba ñu bindal ko ko kooku tabaski war na ko te fekk mu am ko te fekk mu am ko. waaw bu ko amul wàcc na ko. waaw te fekk mu am ko. Mhm. ñu kooku la tabaski war. waaw foofu oustaz euh, dañ xaw a defaat ni tuuti. acca xale bu góor bi dinaay gis oustaz mu jël benn gañilaa. Hmm. jënd gañilaa quarante mille. wala hmm. cinquante mille. Mhm. fay ñëw quinze mille. ndeysaan jënd marakis dix mille francs. Mhm. may xale bi cinquante mille bala ñu àgg sax ci may xale bi. Mm-hmm. mais li mu def ci boppam rek génn na xar. kooku ban xale la noonu. am na ci dëkk bi oustaz booy loolu la def booy Dakar li oustaz mm-hmm. Alioune di wax booy Dakar. Mm-hmm. booy Dakar noonu la def. léegi est ki jël loolu yamale ko ci sañse te tabaskiwul kooku day am daan wala. déedéet maanaam <laughs> ndax dana am daan ak du am daan leneen la. ndax ki jël loolu kooku noonu def ko te te jëndutum tabaski. waaw su fekkente waajuram ma nga fa ca kër ga rendim tabaski mm. wala kenn rendi ko ca kër ga yéene waale ko tiyaaba ji mm-hmm. moom amul bàkkaar ci ñàkk tabaskeem googu mm. waaye nag perte na aw yiwu bari waaw xam nga ci jaamu yàlla sëñ soin bu faaw nit ki xàmmee mm-hmm. li nga xam ne dañ naan boo ko defut am nga bàkkaar ak li nga xam ne dañ naan la boo ko defut amoo bàkkaar mm. dafa am loo xam ne ku ko def am ci tiyaaba ku ko bàyyi am bàkkaar mm-hmm. am loo xam ne ku ko def am tiyaaba ku ko bàyyi doo am bàkkaar yooyu dañ koy xàmmee. kon tabaski dafa nekk benn na mu akkada. boo xam ne de manees na ci yóbbaale nit. maanaam man su ma tabaskee ca kër ga. mu wàcc sama waa kër ña fa nekk te ma doon seen kilifa. bu fekkee yéene waale naa leen ci. léegi nag ñoom bu fekkee yoon nañ cent mille seen poste mënuñoo dem jëndi xarum cinquante mille. Uhuh. ñu xootee ko yére sañse wala boog ñu def seen famille nañ koy def xaw ma lu ko def mm-hmm. bu boobaa ñoom nekkul ne dañoo am bàkkaar ci seen ñàkk tabaski woogu mm-hmm. waaye nag manqué nañ lool tiyaaba yi ku tabaski mm-hmm. <laughs> loolu laa jublu ci laaj bi bi nga nee dafa bi ma kan ma war a tabaski waaw mooy est-ce que du na ki ko mën war na koo def euh, loolu laa ci waaw ku ko man ki ko man war na koo def effectivement célibataire day tabaski tabaski bi may wax ñi ko man boolewu ma ci am jabar léegi comme comme tontu naa ñi mu war te boolewu ma ci am jabar moo lay won ni jabar du sart ci tabaski waaye nag fii ci réew mi day bokk ci liy soññi nit ki ci mu ki ndax day day neexal kër te day rafetal ab ab ànd. muy soxna. maanaam tabaski ci ki am soxna. ki am soxna. aada la ci ñun rek. yaa sama waa ji ci ñun rek ki nga xam ne amagut am tabaski. Mhm. ki nga xam ne ki nga xam ne amagut soxna. Mhm. buy jënd am xar euh, ci bisu tabaski. Mhm. moom da koy jënd parce que danaan bon maa ngi jëndal paa bi xar. mais bu amee soxna. da ngay dégg mu ne. xarum soxna si. même bu ñëwee sax soxna si daanaan sa moom tabaski ñëw na. kon moo tax man la ci aada ji fii am soxna gi da ciy soññi nit ki waaye nekkut ne loo xam ne moom dañ naan ko am soxna tabaski war na la ku amul soxna tabaski waru la déedéet ki am soxna ki amul soxna yépp mu kàllaf moo xam ne daal xàmmee na te am ko te doon ab jullit bu ko amee tabaski war na ko. tabaski war na loolu mooy régal bi. waaye su ko mënul moom. ku loo mënul wàcc na la. yonent bi defal na ko. de lislaam bul dugg sax ci déew defal na ko diw defalu ko. wàcc na ko lislaam moom loo mënul rek wàcc na la. wàcc na la waaw loo mënul wàcc na la. Mm-hmm. julli gi la kenn defalut. Mm-hmm. bi nga ko tëlee wàcc na la. Mm-hmm. Ah. ay ca fa la ñuy jaare sax dugg ci coono yi yi am ci tabaski bi nii nag fan la jógee commencé nag dugg ci xëy na ci xelu ci dund doomu aadama yi <laughs> kan moo ñu teg euh, lii junñu ko ko sànq muy soxna si la taxaw ni leen di jaay sa ñëw maa jëndal nangam ak nangam euh, coono bii nga xam ne oustaz ñu ngi koy dund ci bu tabaski ñëwee xel yëpp jaxasoo ki am jëkkër ki amul <laughs> jëkkër ki am ay soxna ki am rawatina sax ki am ay soxna kenn ku ci nekk nee na war na maa jënd ñetti xar kii ni ñeent kii ni ñaar coono boobu noonu oustaz ñu nekk nag kan moo ñu ko teg. lislaam moom nee na moom ñu wax ne ko keccet ko ci. ci mm. bi. Mm. moom daal nañ ko ci keccet. yéen ñu sañse de yéen ñu ñu ñu bégal suñu njaboot. ba tey keccet ko ci rek. ndax ndax ndaxte yooyoot néew ma la mënta ñàkk damaa ne la ko man ki ko man moom du coono ci moom ki nga xam ne bu ko defee du doon ab coono ci moom. waaw kooku la lislaam wax def ko. ci mm. mënul nag te tegoo coono bay jàmbat. lislaam nee na ko man di génne ma sa njàmbat loolu du man est-ce que bëggul bégal njabootam oustaz ah kay bu ko mënee lislaam ne ko bégalal kon moom kenn du ko ci kaccet bu ko mënut nag ba pare sonn ci laa wax na lebi lislaam nee na ko kaccet ma ci na lebi lislaam ba ñur ko leb li ndax ku leb hmm. nekkee la 5 ma war a fayeeku la 15 hmm. ma ñëw ci yow leb la njëgu tabaski te te ne la bu la 15 ma fayeekoo ñëw fay la hmm. lislaam ne ma defal loolu ah waaw bu la jotee ma ñëw fay la bor moom dafa bokk sax ci lislaam bor ci la bokk lislaam na lislaam ba ñut bor dafa organiser ni ñuy lebe rek waaw <laughs> ah. ah. l'islam ba ñu ko leb di waaye nag organiser na ni ñuy lebe mm-hmm. l'islam dafa bëgg su ma lay leb si su ma la lebee ma wax la kañ laa lay fay ah, waaw waaw loolu la bëgg daal waaw bu bis ba jotee su ma ko mënutit su ma ko amut bu ma toog rek naan naa bàyyi ba gannaaw suba déedéet naa ñëwaat ba ci yow wax la ko ne maa la waxoon samedi laa lay fay la quinze mm. yàlla dafa dogal la ma yaakaaroon jotuma ci mayaat ma la ba euh, kon bala vingt bu la jotee su ma mënut naa ñëw ne la may ma balaa bala balaa vingt cinq mm-hmm. yonent saa sallam nee na bu amee yéenee fay ko bi muy leb suñ borom jàppandilal ko lu mu ko fayee mm. loolu la lislaam organisé leb ñun nag ni ñu lebee mooy dañuy leb te fa suñu yéenee fay ah loolu am na fi ah xam nga li may wax moo tax jigéen ñi bu ñu jógee jawbe wala ñu jógee Mali duñ jaay teew dañ koy dañ koy leble waaw ndax tey nga fay maa gën a yomb tey nga jënd te nit ñi loo leble ñu leb ko da nga koo xam ne day leb loo xam ne da naan kii muy liggéey fan la ko nar a fayee ji wax nga dëgg de waaye dana leb rek di xool nu mu koy dóore fii dóor nii dóor nii moo tax bu njëkk ñu doon bëccëg Sénégal am xaalis waaw bitig yu mag yi nga gis yëpp ñi ko moom hmm. mooy ñu ñëwoon yor yor ay séri wax ak ay ñetti saabu di ko bëccëg bëccëg fukk nit nit nit ña leb lépp ñu leen koy bëccëg ba far am xaalis wax nga dëgg de ah kon lislaam daal li ma doon tontu sa laaj boobu mooy lislaam ba ñu leb mhm. waaye nag dafa organiser ni ñuy lebe mhm. moo tax ah. ci tabaski mi kon ki yaakaar fu mu ko fayee mhm. bu ko lebee baax na li ñu bañ kay mooy yaakaaroo fenn foo ko fayee jël avance tabaski booleeg leb boole ci jëndum xar jaagar jaagari ci bis bi ñu tabaski ba ci suba ga xale ya war a jànge duñu am loo leen inscrire facture bi ñëw ngay débrouiller dépense bi kasaalika lislaam nee na la sa bi bàyyi ko ndax man xar mu rëy meeg yi nga fi def yëpp safuma Mm-hmm. li ma doon neex mooy nga def li ma nga def li nga man mm-hmm. nga def li nga man te génn ci looloo looloo ma looloo ma ñor ko lislaam wax nga def li nga man euh, li nga man daal looloo ma saf waaye lii nga def nii yëpp dara safuma ci waaw mm-hmm. parce que man damay seetlu oustaz léeg-léegi euh, biggal njaboot gi day jaral Sénégal yi lu ne euh, di nga dem lebi comme ni nga ko waxee boo amee fooy liggéeyee te yaakaar fayee ko sax dara newu ci suñ la joxee nga dem joxe maa ngi ko wax fàllu sànq ci reportage bi mu doon def ci émission bi ma ne ko bari na ci ñoo xam ne bu tabaski paasee dootuñu tëdd si heure bi ñu daan tëdd si guddi la ñuy tëbaski la ñuy tëdd si ndax lan li ma leboon borom duma ko romb ci koñ bi bu ko defee bu booy tëdd sa njaboot duñ la gis sooy xëy sa njaboot duñ la gis mu mel ko ni oustaz daw googu ngay daw sa njaboot la la ko yóbbee mooy xalaatoon damaa bëgg a wégal sama njaboot muy kon coono boobu dafa mel ni kon li nga wax l'islam génn nañ ci génn waaw l'islam daal kaccet ci la maanaam ma loolu moom kaccet ma ci bañ wax fekkuma fa fekkoon na ma ma gontu ji mm-hmm. waaw kooku moom na ñu kaccet ko ci mooy lu saw yoon nekkul mm-hmm. wax naa la léegi bi may tàmbule ne la l'islam lu diis du lislaam loo yanu mu diis rek yenneekul du lislaam mm-hmm. laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaaha mm-hmm. yàlla nee na du ma leen teg lu dut lu jàppandi ci yéen ñun nag ñoo jël lu jàppandi li neca neca ba lu jàppandi la mujj doon nag lu diis gan na mm-hmm. ko teg suñu gis nga wusaa bi la yàlla defal ngir nga dox ci lu jàppandi la waaye nag boo ci raxee ay aada ay ñamatoos yooyu bu yàggee day diis gan ñun li ñu diisal lépp aada la aada la waaw te te malheureusement dindi fi aada jooju dafa jafe ci jàmm yàlla gi parce dañoo jaxasoo dafay yàgg moom la si Sidi Hadji Malick doon wax ni mm. aada ci Sénégal moom dafay sax ba am ay sell ay bëñ mm. ku ko bëgg a buddi faaw nga muñ màtt yim lay màtt mm. waaw faaw aada màtt la mm-hmm. li nga fekk seen kër daan ko def nga ñëw bëgg koo dindi naan lii la yàlla wax faaw nga muñ nag baat yi la ciy tegal waane bay bëgg a dee kañ la fi juddoo ka def nangam lu ne maire yi la ko wax ndeysaan <laughs> yàlla ñu yàlla yërëm amin amin euh, oustaz sànq yaa ngi wax te man la dinaa ci ñëw muy wàllu saraxe gi nga doon wax gi lislaam wax euh, nga xam ne man gis naa foofu dimbalante bu fa am mhm. euh, beneen bi mooy tuddoon nga ci biir nii ki nga xam ne mën na xar mu rëy bu toll ni nag mhm. na ko def mhm. Euh, foofu ma gis ni est-ce que bu fekkee ni topp nañu wàllu dimbalante gi. Mhm. xar mu toll ni ñey wu toll ni nag wala boog bu nga bu ngande laa bëgg a wax. Mhm. njëg gi toll ci un million wala lu mhm. ko dépassé. est-ce que lu war la ci suñu jamono ji ak néew doole ni mu baree ci koñ. waaw xam nga bu may wax xar mu mag <laughs> tuddaguma njëgu xar bi waaw réew mu nekk dafa am loo xam ne boo foxee mu yenu maanaa. ak loo xam ne yenuwut maanaa. suñu réew mii ak ni ñu dundee. ak ni ñuy doxalee ci wàllu social. boo tuddeem xar tudd million. l'islam sax boo muy tuut bàkkaar ngay am mhm. bi may wax xar mu mag mooy nit malgré ñi fi fi mu ne ñi soxla ndimbal ñëpp kenn ni dong mënu leen a dimbali waaw waaye nag da ngay dimbali ñi nga man ñëpp waaye xarum maanaam xarum un million ëpp na ci tabaski mhm. waaw man ngaa xaw tuuti kon nga ne sénégalais bu ko tabaskee yàlla bëggut mhm. waaw xarum xaw tuuti kon nga mën a wax loolu baa du puukare da ci bëgg a dugg de moom dafa xam nga am na am na réew moo koy wax xëy na ñoom la ñuy dundee. Mm-hmm. mën naa man naa yenu maanaa waaye suñ fii ab maanaam ab million li liñ ci mën a defal. Mm-hmm. li ñu ci mën a defal yàlla. man mm-hmm. koo defal société bi. man koo def feneen fi ko yàlla gën a bëgge boo ko defee ci ab gàtt rendi ko fees ko lekk yàpp wi yàlla neen la yow loo jublu ci lee. parce que yàlla neen la man xarub million mi intéressé wu ma. moog cent 500000 ak bu 200000 ak bu 100000 laa yemale. <laughs> ak gànnaaru ku bëy. li ma intéressé mooy taqwa minkum mhm. yëg-yëg bi ngeen di am bi ngeen di rendi looloo ma looloo ma soxal mhm. boo rendee xarum un million moo lay won ne yëg-yëg boobu est-ce nekk na ci yow wallaay wallaay mhm. li ma wax ne nag bu la neexee nga rendi xar mu tol new nag mooy ki nga xamante ne mën naa dem jënd xar mu rëy waaye nag du ma tudd njëg gi mu ko jënde ndax fi ne boo tuddee njëg gi même boo ne woon cent mille da ku ne ci wet bi koo xam ne man dana ne mënoon naa jënd xarum cinquante mille jox ma jox ma vingt mille yi jox diw vingt mille yi jox diw dix mille yi mhm. nga ne xarum quarante mille am ku ne mënoon naa jënd xarum vingt cinq mille def nangam def nangam kon ku topp ñooñu yow doo defal yàlla ci li nga man dafa am ñaar ñu yàlla séddalee àdduna mhm. ñenn ñi dañuy man ñenn ñi duñ man mhm. ñi man dafa am lu ñuy def ci seen man-man bi loolu da caa bokk dimbali nit ñi ak jaamu yàlla ci alal ci moo tax da ngay dimbali ñi nga mën a dimbali te bu la neexee nga jënd xar mu rëy nag waaye ñi nga war a dimbali dimbali leen ñi mënut itam nangu googu ñuy nangu ni mënuñu mm-hmm. day tax yàlla dimbali leen eh, maanaam yeneen saa salaam dafa toog ma Madina ñu ñàkk ñi mën ngaa wax tey ne dañoo grève takk seen morto yu xonq hmm? di mars waaw ñëw ci moom ne ko borom alal yi gañe nañ ñu yóbbu nañ yool bi hmm. ndax ñoom bu xare jotee dañuy dem xare ji ànd ak ñun hmm. kenn dàqu leen a xare bu julli jotee dañuy ñëw di julli si te boo wootee ne nañ def ci lislaam ñun yoruñu luñ ci def ñoom ñooy dépensé kon gañe nañ ñu. ndeysaan. wutal mhm. ñu solide parce que lii mën lii mënta wéy. Mhm. yeneen saa sallam néewu leen da da da dama leen di ñaanal pour ngeen am de. ndeysaan leen it nañ leen jox ñoom ci liñ am. Mhm. dañ leen bu ngeen julleetee ba noppi. dee leen def subhanallah. alhamdulillah. allahu akbar. léegi pour ñu gañee ko kon ñi am ndax ñoom ñu am tiyaaba. bañ ko defee ñu tàmbali koo def ab diir matul semaine ñu gis ne ñi am ñoo leen ko dàq foofu ñoom it ñoom it ñoom it dégg nañ ko tàmbali koo def ñu ñëw ne ko dolli ñu parce que lan ñu joxoon gaa yi jël nañ ko mhm. mu ne leen loolu nag saalika fadlullah yu'ti man yasaa wallahi ndeysaan loolu ngëneelul yàlla la yàlla moo ko jox ku ko neex mhm. moo tax àdduna ñëpp duñ tolloole mhm. ku bëgg a noppalu mm. da ngay def li nga man foo fekk kuy jéem lu mënut ña koy seetaanee njëkk a noo ko waxee foo fekk kuy jéem lu mënul mm. seetaan yaay njëkk a sonn ah. day kóor kóor kóor kóor kóor tey lii nii di nuru ko appare su ma ko bëggoon a taal te mënuma ko yéen ñi may seetaan ñëppay sonn ndax da ngeen di yàkkamte mu tàkk te man mënuma koo taal fu ne laay bës fu ne danaa fa bës di def nii di def nii bëgg mu tàkk ngeen yéen ngeen yendumaa seetaan ndax bëgg ngeen a tàkk bëgg ngeen mu tàkk bu ko defee man maa ngi xalaat ndax baax na ndax baax na ki ko mën a taal nag bu ñëwee koy taal ah. kon nit ki dafa def li mu man bu bëggee noppalu bëggee noppalu ah. euh, waaw kay oustaz ma gisaat beneen puukar yu xaw xaw ndax bokk na suñu aadaam yooyu gis naa fii Sénégal daal wala daanaa ko gis euh, xare yi yeew xar yi bala ñu àgg ñu àgg foofu sax sànq tudd nañu wàllu soxna yi waaw ah, ndeysaan euh, am na koo xam ni pare na pour ñibbi kër yaayam ak mm-hmm. papaam mm-hmm. ndax nee na boroom kër jëndalu ko xar mais mm-hmm. nee na boroom kër li mu jënd dafa ndaw bala ñoo àgg ci bëy lañ war a rey ak nàngam yi ñu war a rey waaw kay am na soxna soo xam ne pare na pour ñibbi ndax lan boroom këram amul lu lu mu ko jëndalee xar ndeysaan na kër ne ko wax dëgg yàlla soxna si man de bëgg naa la lool su ma la doon jëndal am xar yow du la jëndal mii muure yi laay jënd waaye xar mii jëndalu ma la ko moomoo ko mm-hmm. yàlla ma ko sant muy tëbaski ma jëndal ko yàlla te yàlla nee na bañu ko yow nag bis boo ameew xew mm-hmm. wala nga sant ma jëndum xar mm-hmm. wax ma mu toll naan nga bëgg oustaz dëkkandoo yi déet yow ci soxna si nga yemoon soxna si nar a ñibbi laa ne waaw nañ ko wax loolu te génn ci dëkkandoo yi soxna si ngay woo ne ko xoolee nawle mi ci koñ bi waaw ñu ko reyal ay mbote li ma li ma billaay li ma wax nii tontu na tontu na li ngay laaj soxna bi da ngaa bëgg ma gën a xóotal rek xóotal gi laa bëgg nag oustaz dama ne waaw si moo ne day ñibbi kër yaayam ndax xar mi nga ko jëndal dafa ndaw uh-huh. da nga ko naan xar mi jëndalu ma la ko yàlla la ko jëndal damay tëb déedéet yàlla jëndalu ko moom mm. da nga ko naan damay tëbaski yàllaa gàll awul sama loosu wi tëbaski ma koy rey tëbaski gi laa koy reyal ndax jaamoo ko yàlla te yàlla bañu ko moom nangu na yow nag bis boo soxlaa ma jëndal lam xar moo moom ci weneen xew mm. wala loo santaane mm. na nga wax xar mu toll nan nga bëgg ah. su ma ko mënut nañ ci waxtaan li mu bëgg a wax foofu mooy tabaski mi soxna si moomu ko ba di ko xeeb mais oustaz mi ngi tas kër yi waaw mais kër yi mu tas mooy kër yi communication amut wala ki tànn soxna si mu wër ta tànn yeneen saa sallam nee na bu ngeen di takk soxna mhm. takk leen soxna su yaru mhm. su yaru waaw moom waaw soxna su am diine laa firee ku yaru rek xam nga man danga ma baal nag ni may ni may firee noonu la noonu la soxna soxna su am diine mhm. mooy soxna su yaru soxna su yaru mooy soxna soo xamante ne nii li muy def dana xam lu jara dem nag lu jër ta dem waaw damaa dem suñ kër lu la tax a dem nga ne dañ maa indi lu mbote muy yéen yow yaa moom mbote bi xaajara a ngay fàttaliku nag sa maam joojee ñu jàppal ci loxo jenn doomam ju góor nar koo rendi ji hmm. mu toog di mooñ ah, euh, di araw arawam yëgalu ko yaramam ndeysaan yow kenn rendiwul sa doom hmm. li mbote mi di tuuti tuuti mën nga cee seeñu ba yor kirdan looy taamu bay ñibbi seen kër ñeex maa dul saf oustaz communication dafa baax ci lu man di doon ñeex maa dul saf nañu nañuy nañuy wax ak soxna yi di waxtaan ak ñoom hmm. ba lépp lu ñu dugg mm-hmm. mu xam fu poosu jëkkëram toll mm-hmm. xam ci lim man mm-hmm. ak lim mënut am na jëkkër joo xam ne jabaram du ko yërëm ndax tiitaram bee bari di jaagar jaagar yi mu yaakaar ne man nga ko danga koo defut wax nga dëgg de waaye bu dee li nga mënoon avant tabaski yaa ngi koy def mm. mu xam fi sa doole yam ak fi mu fi fi mu tàmbulee ak fi mu yam mm. ba bis ba ñëw mm. benn bis boobu du yàq seen ah. du yàq seenu dund mbaa du soxna si kon ni mu lay gisee noonu la lay laajee waaw am rek daf cee am rek ay ay ma ay benn yoo xam ne noonu lañ lay laajee waaye li nekk yoon mooy ku jigéen ki moom muy soxna si yoonam daa wërta nekk sama tabaski mii rëy na tuuti na ah, du dana dugg ci kër gi dana génn loolu loolu du domenam buy dugg may génn waaw buy dugg may génn moom ah. danga wallaay bu la taxee dugg nga génn waaye taxul a dugg gàcce lay bañ rek waaw xar mi <laughs> yonent bi sallam nee na suñu borom subhanahu wa taala nee na hmm. jaam bi du ma defal lu ma gënal li ma farataal ci moom Mm-hmm. li yàlla farataal ci nit ki mm-hmm. doo ko defal lu ko gënal léegi lan mooy gàcca gàcce mooy asukat vraiment jëndal nañ ko xaru deux cent mille jëndal nañ ko ki nga xam ne moom mooy fàjjeng ma jëndal ayda mbote mbote trente mille léegi ayda yenn bagaasam di dem seen kër moom du gàcce loolu du gàcce man mi maa def gàcce oustaz hmm. as ñu jëndal ko xaru 300000 jëndal Faaj Jëng jëndal ñëpp jëndal Adja Sow sama xarit boobu may tudd euh, bañ ma tudd ci rajo bi ñu jëndal ko 500000 xaru 500000 ma jëndal ay dem ba te 30000 léegi gàcce la léegi pour euh, donc pour ñu tëj loolu xam naa ñi lay dégg xam nañ ba xam ndax loola jaadu na am déet waaye <laughs> li ma bëgg a wax déet jaaduwut moom sëñ oustaz jigéen dañ koy teral ah kay ah, ah koy teral waaye dañ koy teral li nga man bilaay teraanga joo man defal ko ko waaye boo ko mënut it nag li ko man rek mooy teraanga hmm. li nga man rek mooy teraanga jigéen ji nga xam ne bëgg nga koo teral ba tax nga dugg ci loo mënut mu jàll doo nelaw wala nga yéeg ak wàcc wala mu la yéet añ fële ci roq ba ci boori ndaw yi ah. laxasu bool yët la xam nga ne da koo teral waaye tëddut akay bari gan nag après tabaski waaw waaw yal na yàlla oyofal waaye yàlla bu fa dem akay ah. bari gan <laughs> yàlla bu fa kenn dem daaw après tabaski bi demoon naan fa am ku may seet mais dama faa gis ñu bëri ñoo xam ne looloo leen fa dugal ndeysaan waaw loolu euh, oustaz hmm. bala ñoo dem fële ci machine bi Euh, sànq tudd nañu wàllu puuk rek ñoom seen yooyu ak xëy na xeebante gi am yooyu ma gis daal xeebante gi xëy na bokk na ci lenn li koy indi muy li Sénégalais yi xewal yeew ay xar ci buntu kër xale di ko sang mu nekk hmm. ponkalum xar. Hmm. mbaa loolu di indi influence ba tax xeebante am ci hmm. njaboot gi. waaw man naa mel ne lu koy lu koy indi waaye mën na koo bañ a indi xam nga bu njëkk dañoo amoon suñu waaye dafa yaatu woon ku jëndum xar am nga foo ko yeew ci biir kër gi. waaw léegi bu dee fii kenn amut foo yeewum wax di yàlla ko amum xar ci mbedd mi dong nga ko mën a yeew foo ko yeew nga wutal ko benn néeg waaw bu dee yow jàpp nga ne néeg yi mën nañ koo préparer la xarit ba tey baax na léegi man li may wax rek mooy li ma li ma gis mu nite lool kër goo xam ne euh, defe naa amul néegub gan nga bëgg ne nañ wutal xar mi néegub néegub xar fii ak fii ak suba la tabaski hmm. sëriñ Jean bu loolu nite wut hmm. kon da jàpp ne ñàkk espace ci kër yi moo waral loolu waaw bu ma ko doon layal hmm. dama naan ñi jënd xar te di ko yeew ci mbedd mi wone xar mi ñu ci ëpp wone ko taxut ndax moo tax mënatuñoo yar ay xar fu ñu ko yeew mhm. ñi ci ëpp mhm. wane xar mi taxut mhm. dañ ko yeew ci buntu kër gi ndax dañoo amul fuñ ko yeew ci kër gi bari na ñoo xam ne bañ jëndee xar mënuñu ko yóbbu seen kër daral gañ ko jëndee fa lañ ko dénkaani bu ñëwee subal tabaski ca fajar ñu jëli ko <laughs> am na ñu def dénkaane fa fay dénkaane fa daal waaw da ngay jënd xar ba pare di participer tuuti ci xont bi ko waaji di jox bu bis ba bu bis ba jotee nga ñëw jël ko loolu moo gën a yanu maanaa oustaz nga ñëw yeew ko ci buntu kër bi waaw ah. mais nag loolaat dafa am danger bu ca nekk ki jëndum xar yi dénkaane ko kooko bu ko waaj a jaayee nag ah. bu waaj gisee ku la gën ku la ëpp prix mu jaay ko di yëg ak yow ko wàcc nag hmm. lu ne de caa nekk loola lu ne da caa mën a xew Mhm. léegi nit jàpp na ne loola mën naa nekk mu def ko kenn du ko ne bu ko def ndax loola baax na bu la neex nga jëndum xar dénkaane mhm. ko yeew na ndax mbaaki nagoogul ma gas kii bi mais di faaw ma gas xam naa ndox dina génn incha allah comme neex rek nga def ni jibi ci 88 oustaz numéro yaa ngi ne bu la ah. neexee nga fàttali leen ko 88 628 30 30 jox leen bi ci des wallaay ndeysaan 88 628 03 04 ay ca waaw hmm. mhm. xam nga ne jommeeti nga de <laughs> xanaa <laughs> oustaz joomee guma de ah, <laughs> joomee guma xaaral ba ca fin ba rek joomee guma de <laughs> ay ca waaw yaa ngi woon ci wàllu yarluwaan nga ni waxoo yarluwaan déedéet dama ne mm. xam nga ki am am xaram te amut fu mu ko yeew ci këram mu yeew ko ci buntu kër gi mm-hmm. laa ne manees na koo nangul ndax bu dee kër ga dafa xat mm-hmm. su fekkee ku koy yeew tey ngistal nag mm. dama naan ko ngistal baaxul bàyyi ko bu dee ki nga xam ne nag da koo mën a jënd ca fa mu ko jënd dénkaane ko fa mm-hmm. ba ca bis ba mu jëli ko baax na Mm-hmm. waaye loolu itam ay risque daf cee nekk su mm-hmm. fekkee ka mu koy dénk xamu ko lu nekk mën na cee nekk jamono ji yàqu ji mm-hmm. moo tax mm, bi nga waxee ne ñuy yeew xare ci buntu kër gi wàllu puukare woowu ma indil la loolu loolu lu ma indi rek la mm. beneen bi ci des mooy bu ñu delloo ba xam ne tabaski mi nit ki moomu ko yàlla moo ko moom moom lañ koy defal mu nekk ak jaamu yàlla puukare day daal di dàqu gis nga wàllu puukare gi ngay wax du ci tabaski dong mm. maanaam mbir mu nekk la koy tax araamal ca biir mbir ma lay doon maanaam ci biir jëf ji ci lalu araam di nekk Mm-hmm. naan café gii man naa dagan waaw waaye ngay naane café naanin wu araam maanaam damay misaal waaw bu fekkoon ne da ngaa bëgg woon nit ñi ne leen fii kenn amu fi café man dong maa ko fi am mm-hmm. nga ba sa café di wengulu mm-hmm. boo moytuwul yaa ngay puukari booba mën naa jur ak araam ah mais da ko am oustaz boo ko amee wane ko nag oustaz bu leen mettil affaire nag ku ko am wane ko waaw xam naa ki ko am wane ko xam naa ni nga ko waxee la da nga may gësam waaw waaye dinaa dinaa nangu tam nag nga gësam ma waaw waaye ki nga xam ne am na ko man na koo wone na ko wone waaye na ko won ki nga xam ne mhm. wonam ko moo mooy safe mhm. mooy suñ borom subhanahu wa taala kooku la ñuy won dara mhm. won ngi am jeexital mais nit ñi ngi koy won amul solo ngistal dafa baaxul ngistal ëllëgal xiyaam suñ borom subhanahu wa taala day dajeeg nit ne ko dama laa joxoon alal ju bari sa alal ji loo ma ci defal waa ji ne ko ku mënoon a joxe la ku mënoon a dimbali la mhm. lu ne def naa ko sama alal ci mhm. ba mu daane la yonent yonent saa sallam ne la suñ borom da ko ne kasabta waxoo dëgg est-ce que da nga daan joxe gaa mm. waaye da nga daan joxe ngir ñu ne diw ak a tàlli ak a tabe te loolu mm. waxoon nañ la ko ci àdduna mm-hmm. kon li nga ci doon def am nga ko mm-hmm. maa ngi waxe yow ba léegi rek ci puukare bi waaw waaw kii ne moom dafa amoon kattan suñ borom ne ko force bi ma la joxoon ak kattan bi loo ma ci doon defal mm-hmm. mu ne ko dama ci doon def ci xare yi di xeex di taxawal lislaam guddeeg bëccëg maa ngi woon ci rajo yi di wax mm-hmm. Mm-hmm. nu ne nu nekk def naa ko di xamtu waaw mm-hmm. bu dee di xamtu man lay doon te waa ji <laughs> man di la baaxul moo tax <laughs> maanaam wàcc waayam bi mu am suñu borom baal ba bu baax nga misaal ko ci xam léegi nag bi mu ko waxee suñ borom subhaanahu wa taala ne ko loolu da nga ko doon def ndax ñu ne jàmbaan la ah. moo taxoon nga doon xare moo taxoon nga doon rey kon li taxoon nga ko doon def waxoon nañ la ko ci àdduna wallaay borom xam bi ne ko man yàlla tànt bu ne maa ko suñ borom ne ko da nga ko doon def ngir ñu wax ne la kii ak bari xam-xam te waxoon nañ la ci àdduna dangaa bari xam-xam uh-huh. li nga ciy dégge mooy lépp lu nit ki def te yàlla taxut uh-huh. ëllëg yowmal xiyaam loolu du ci amuk pay yowmal xiyaam loolu du ci amuk pay yowmal xiyaam loolu du ci amuk pay yowmal xiyaam loolu du ci amuk pay yowmal xiyaam lool du ci amuk pay yowmal